mbokk yi xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat spécial bi Paul Maurice numéro 2 Sokh numéro 2 numéro 2 fere bi kan lay feeñ tey ci diggante Paul Maurice numéro 2 ak Sokh numéro 2 Sokh numéro 2 lañ jàkkaar lool Paul Maurice numéro 2 moo ñëwoon ginnaaw moo ngemboo ngemb lu weex li Sokh numéro 2 moo ngemboo ngemb lu arbitre bi sifflé na ñoo ngi lewaatoo di xoolante ci biir bët soq dagg na lewaatoo bi demee ndeyjoor ba mu neex mu taxaw waaye Paul Maurice nga topp Paul Maurice numéro 2 soq cokkaas na léegi waaye dalul. Sokh cokkaas na léegi Paul Maurice numéro 2 Sokh numéro 2 xeex nañu Paul Maurice numéro 2 Sokh numéro 2 Paul Maurice cokkaas na léegi mépp na moom Paul waaye demul door na ko eh, ñoo ngay xeex Paul Maurice soq téere yaa ngay naaw xale yaa ngay xeex Paul Maurice soq daw na jël ko Paul Maurice dañuy xeex téere yaa ngay naaw sëriñ ba am na lay Paul Maurice soq daw na fàq ko soq fàq na Paul Maurice Paul Maurice a ngay raam soq numéro 2 Paul Maurice laay xale yaa ngay bëre ma numéro 2 Paul Maurice doorante nañu sooko da koo bëgg a jël Paul Maurice numéro 2 Sokh Sokh numéro bu xeex bi saxee mën na ci am Sokh Paul Maurice Sokh da koo bëgg a jël waaye Paul Maurice dafa nandu loolu Paul ñoo ngay doonante ci suuf ñoom ñaar fàq na ko Paul Maurice fàq na soq ñoo ngay xeex Paul Maurice mbaa kaawoo du ci am xale yi dañoo ñeme yaante ñoom ñaar soq à gauche Paul Maurice à droite soq dagg na bi andi ko ci digg géew bi dañuy noppalu wala lu ñuy def. Sokhoto xaas na léegi waaye dalul doon na ko droit bi daal moom Paul Maurice Paul Maurice ni muy xeexee baax na ñoo ngay xeex ba kaawo du ci am Paul Maurice Sokhu ñoo ngay xeex xeex bi tegatuñ ko ko ci yoon Paul Maurice Sokhu plaqué na ko plaqué na takk mbot na lan njaax njaax dara amul abit woowaat leen bul joxe verdict woowaat leen kenn nanguwul woowaat leen ñoom ñaar ñu bëre eh, abit bi lumu def nii abit bi lu mu def nii dox na jox na ki nga xamante ni mooy soq numéro 2 bi joxe na victoire ki nga xamante ni mooy soq. bëri nañ yàlla nekk sa kanam. bëri nañ. waxal non bëri nañ. mais li ma man xamee ñu ma si adversaire. Arafat ma laa ma booleel rek dinañ bëre. waaw